Euh, je te je vous remercie Amadou xam nga li nga wax ni turandoo président li nga wax ni je vous renvoie juste à la personalité de Amadou Ba gis nga Amadou Ba da nga koy xoolee le feu président Ousmane Tanor Dieng c'est des gens yoo xam ne dëkk bi mën nay taax ci seen kaw duñu muus a ŋàng du ñu a wax mën nay subir toute sorte de pression. il reste lui-même. mais est-ce que loolu du problème leadership aussi. non est-ce que du manque de leadership aussi. c'est un ça un homme d'État. xam nga fi nga jëm xam nga sa vision faut pas que ngay geesu pour xool parce que booy dem booy avancé xaj ni dinañ la mbaw boo wóor bu la wóoree damay dem te duñ mu mënal dara da ngay dem sa yoon lii bal bi tàkk na dara mënatu ko téye Sénégalais c'est le moment de comprendre que ni Amadou Ba tey même s'il dérange au sein de Benno même bu fekkoon sax day déranger au sein de Benno buy déranger ci principe lay doon il ne descend pas day continuer xam nga dèjà bennoon koy mere parce que ñu bëri nañ dafa am affinité ak opposition bi opposition bi ñu ngi koy mere parce que mooy li nga wax léegi nee nañu Amadou Ba c'est Macky Sall personne ne te dira que non je l'aime pas parce que Ba du il est pas compétent. mais est du loolu mooy problème c'est-à-dire Amadou Ba kenn mënu ko comprendre c'est-à-dire kenn mënul comprendre di tànk bi lay fecce tànk bee du loolu mooy problème Amadou Ba c'est-à-dire damay ñëwaat un peu bi cest bu ñu la jiitalee c'est-à-dire il faudra nga leadership pour mën a remobiliser li nga xam ne mooy les troupes mais actuellement li ñu gis ci Amadou Ba il n'arrive pas à remobiliser les troupes ni ko ànd ak moom sax vraiment ils sont un peu sceptiques. la parce que c'est le candidat de la réconciliation xaañul kenn xarabul kenn te li ko président Macky Sall jox. dina ko téye da koy réconcilier te aussi tamit du tax aussi ñeneen ñi mu xalab leen. parce que ce sont tous des sénégalais faut pas que politique mu tax mu am ay animosité yu yu yu dur. Mm-hmm. on yu entendu ici de l'autre camp ñoom ñoom doo leen dégg ñu wax ci Amadou Ba leneen lu bon lu dul peut-être taquiner taquiner te entre politique munul gagner parcelle munul lii ak lii fa la ñuy yem mais Amadou Ba muusoo dégg doo ko vaar muusoo dégg ñu ne la Amadou Ba wax na lu bon ci même nit bu koy génn di ko xalab. waxatuma la ak un opposant il est resté lui-même. on voit